aca Dembel ak Wos Jordan Dembel moo won ginnaaw takk ngemb lu xonk li Wos takk ngemb bu ñuul bi Wos sol na naax di forcé Dembel a ngay rasu mbot ma attention Dembel mbot nar Wos laa ilaaha illallah nee na ko deux Dembel daan na Wos Ndeysaan Wos jombi na